boo dikkee ci mbirum sëriñ bi noonu la ko itteele yoonu ñor ko man mi di wax ak yéen de saa su ma ko saa su woowee nee na dama laa soxla bu ma ko nee may ñëw sax du ko nangu te amu ci benn boo xam ne mas naa génn yitte yoon wi ak yitte réew mi ndax xalaat yu bari xalaat yu am solo xalaat te na mu ko gëmee it ak na mu ko na mu la ko waxee te du ci gis bopp du ci wane boppam kon loolu doon doon sëkk. te loolu